ca conseil constitutionnel cour suprême ak cour justice de la CEDEAO li ni mel nag ngir ñu daal di annuler rek décret ba nga xamante ne rek daanaka njiitu réew ma jël na ko rek convoqué corps électoral ba ñeel rek la nga xamante ne moom moo di législative yi mu mel ni nag ñoom jaarale ko ci seen i ay avocat ñi leen di layool ñu daal di rek déposé yile lettre rek nga xamante ni sax daanaka ñu nga daldi rek jëbbal ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo di conseil constitutionnel cour suprême suprême ak cour justice de la CEDEAO ah, mu doon loo xamante ni nag daanaka ña ca bokk bëri na loolu daal di rek fare ca kujje politique rek daal di def li ni mel ah, mu daal di doon rek décision boo xamante ni ñoom daal nañ koy jël rek ngir annulation décret portant convocation du corps électoral ba nga xamante ni rek kii di njiitu réew mi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina koy jël. ñu wax ci coow bu Jérôme Badiaki mu mel ni nag moom. Ah, ni ki démb doyen des juges d'instruction bu tribunal bu ndakaaru dal na koy rek ah, placé sous mandat de dépôt gannaaw nag ay retour de parquet ba nga xamante ne rek amoon na ko mu mel ni moom ni ki démb ah, daanaka dóor nañ ko mandat de dépôt lañ koy toppee nag bokk na ca escroquerie détention illégale d'armes à feu et usurpation de fonction yëpp rek nekk ay charge yoo xamante ne tegu na ca ndodam moom Jérôme Badiaki ñu gën ko xam sax ci sniper mu nekkoon ñenn ca nga xamante ne yoroon nañu sécurité ki fi nekkoon njiitu réew euh, di Macky salle mu mel ni nag moom euh, gannaaw arrestation musclée ba nga xamante ne euh, ñii di dikk daal nañ koy def rek jébbal ko procureur ni ki démb nag mu mel ni juge d'instruction bu tribunal bu Ndakaaru placé na ko rek sous mandat de dépôt mu nekk rek yenn ci charge yoo xamante ne bokk na ci escroquerie détention illégale d'armes à feu et usurpation de fonction ñu wax ci coowal deux mille sept cent kilo or ya nga xamante ne rek daanaka génnoon na ca réew ma jaar ci ab jet privé li ni mel nag mu daal di doon loo xamante ni sax daanaka jur na coow lu rëy ci réew mi ba sax ñu daal di ci rek interpellé woon na homme d'affaires bi di wuyoo rek ci Abdoulaye Sylla gannaaw si nag audition ba nga xamante ne mën nañ ko rek moom Abdoulaye Sylla mu mel ni nag daal nay jàpp sax ne yenn ci document administratif yoo xamante ne rek daal nañ koy falsifié rek jëm ca li ni mel gannaaw si or ba nga xamante ne rek génn na ñuy wax sax ab marché boo xamante ne rek daanaka Ah, moom lañ ko jébbaloon mu mel ni nag moom li ni mel daanaka jóg na ca rek ngir daal di sax déposer plainte jëm rek ca la nga xamante ne daanaka ñu nga koy taqal rek mu jàpp ne sax ne bile plainte faux et usage de rek la ci rek document yi nga xamante ne daanaka bind nañ ko rek jëmmal ko ca moom mu ñeer rek deux mille sept cent kilos or yoo xamante ne génnoon na ni ki février deux mille vingt et ci Sénégal rek jaar ca jet privé mu jàpp sax ne li ni mel daanaka taqal na. nañ ko ci rek dara amu ci bu ñu génnee ci loolu ñu wax ci coowal Lat Diop mi fi nekkoon DG bu LONASE mu mel ni nag moom jamono ji daal dinay rek bokk ca liste ñi nga xamante ne rek aay nañ leen ñu daal di génn réew mi rek waral nag ba moom Lat Diop bàyyiwul mbir yi mu sedd daal nay rek taxaw tem ngir daal di rek saisir cour justice de la CEDEAO ci rek yile interdiction nga xamante ne rek daanaka nemmeeku nañ ko ci ñenn ci ay kilifa rek fii ci réew mi moom nag ñu daal di ko ci sax cité ba jamono ji mënta dem mënta dikk waral nag ba moom Lat Diop mu daal di rek taxaw tem ngir rek xeex ak li ni mel daal di rek saisir cour justice de la CEDEAO ci rek jafe-jafe yi nga xamante ne teg nañ ko ko rek interdire ko mu génn réew bi bu ñu génnee ci loolu ñu wax ci leneen animateur bu télévision Futur Média bi di Pape Cheikh Diallo daal di nay mer ba futt lool jëmal ko rek ci yenn ci ay yoo xamante ne daanaka ñu nga koy yàq mel n xeme jëm rek. ci coowal Doro Gueye Clara ak kii di Racky Aïdara moom nag Pape Cheikh Diallo gannaaw humour ya nga xamante ne mu nga koy def ca kaw seen ba mu doon wax sax waxi Clara gars yi sax di wax naan moom dafa mel ni ci kaaba rek Clara la daal di àndal waaye moom Pape Cheikh nag muy leeral rek ne àndu ci ak kenn ñëpp ay xaritam lañ waaye nag humour rek la jëlee woon kàddu ga nga xamante ni sax yëkkati na ko waral nag ba ñenn lu mel mer ba futt lool yëkkati ay kàddu yu ñagas rek jëmal ko ca ña nga xamante ne rek daanaka seenub esprit baaxul rek ci kàddu ya nga xamante ne yëkkati woon na ko jëmal ko ci coowal Doro Gueye Clara ak kii di Racky Aïdara ñu daal di wax ca bu rafet ba mu yaa daal di def jagleel ko les mères célibataires bokk na rek ci ouverture de yi nga xamante ne daanaka ay fan moom moo ca daal di des moom chanteuse bi nag mu daal di def ay yu cinquante mille jébbal ko ñaar fukk ci ay. ay yaay yoo xamante ne rek daanaka ay maman célibataire sax lañ leen mën a duppe rek ngir ñu daal di koy dimbali ko ca la nga xamante ne moom moo di ouverture des classes ak na nga xamante ni sax daanaka réew mi daal dina métti rek mu la nga xamante ne moom moo di ouverture des classes rek ngir jàppale ña nga xamante ne ñoom ñoo di les mamans célibataires mu daal di cay rek lu toll ci ñaar fukk jébbal leen ay enveloppe yu cinquante mille. wax ci beneen chanteuse Astar lay wuyoo ñu ngay gis rek lu look ba nga xamante ne eh, daal na koy adopté rek moom la jeune chanteuse ah, mu doon ku ñu ràññee bu baax a baax de part talent yi nga xamante ne ah, daal na koy am ci wàllub musique ñu koy gis ah, récemment nouvelle photo yi nga xamante ne rek daal na koy partagé moom Astar mu doon une jeune chanteuse bëri lool ay soppe ci réseaux sociaux waaye tamit mën lool la nga xamante ne mu ngi koy def rek ñu ngay gis récemment nouvelle photo yi nga xamante ne daal dina koy partagé ci compte am Nogaye Kara la tokkeuse ñu ngay gis rek ca émission Mame Coumba Confession mu daal di yëkkati rek ay kàddu wax rek ca enfance am na mu métti mu daal di doon rek yu métti yoo xamante ni rek daanaka dund na ko rek bokk na ca ka nga xamante ni sax daanaka moom la nekkaloon rek mu daal di koy tooñ maanaam am doom ak moom rek a mu nekkoon ay période yu sombre yoo xamante ne rek moom Nogay Kara daal di na koy dund rek mu daal di sax delluwaat rek ca vie bu métti ba nga xamante ni rek daanaka traversé na ko rek jamono. jamono yooyu moom koy Kara mu daal di doon rek jamono ji tiktokeuse bu ñu ràññee bu baax a baax rek ci réseaux sociaux yi ñu daal di wax ca groupe Futur Média ba daal di décroché rek partenariat am ak structure bii di a production loolu nag mu nga ñeel combat royal ba nga xamante ne rek mu ngay dox ca diggante Modou Lo ak kii di Siteu ñu koy xaar nag ni ki 24 novembre atum 2024 bi ñu nekk bi les structure nag mu mel ni xaatim na nañu rek ab partenariat jëm seen diggante ak groupe Futur Média mu doon làmb joo xamante ne rek daanaka Sénégal yëpp ñu nga koy xaar rek ci bile a nga xamante ne rek mu ngay dox ci diggante xarañ lu ak ka nga xamante ne moom moo di Siteu ci fàttali nag moom Modou Lo gannaaw yenn ci ay jeune talent yi nga xamante ne rek daanaka daan na leen rek mu doonoon ay combat royal mu mel ni ka ko daal di dese jamono ji moom moo di Siteu mu doon rek combat boo xamante ne ça promet gannaaw si affiche ya nga xamante ne ñu nga ko cay xaar rek waaye bi la signature mu mel ni ah, ni ki mercredi bi sax daañu ko amal rek a ah, ca locaux yu télévision Futur Média ah, ci rek partenariat ba dox seen diggante ak structure bi di jàmbaar production mbokk yi safoon doon ñu teewlu li lañ leen andiloon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi talaal cloche notification bañ a raté dara suñu information jërë